loolu loolu waxu yàlla waxu yàlla du invite obligation la ci ki nga xamante ni dafa gëm waxu yàlla du invite obligation la ci ki nga xamante ni dafa gëm Omar Faye nga ne tu n'es pas d'accord je ne suis pas te nee man murit laa Baay ah, Faal man mit man Baay Faal laa Sëriñ laa gëm ak Cheikh Rafal dafa am nag lu ma gën lépp mu ngi ak taalibe te sëñ bi wax ko ak taalibe ndax Cheikh Rafal ci boppam ne lu nit jàng jàng jàng alxuraan nu mu mënti tol taalibe ko gën a wóor ndax taalibe si la yëpp nekk te ci loolu lañ sukkandiku te ci loolu la ñuy dox kese te lépp lu ñuy wax tamit xam nañ fiñ ko teg du rek nag nit day wax indiwul aaya alxuraan la muy wax nekkul ci alxuraan attention nit mën na wax te la mu wax ca alxuraan la ne. mais nga baal ci loolu ah, nga baal rek ma ndaw. waaw borom daaru muxti. waaw. maam Cerno Ibrahima rek Cheikhul Khadim. waaw neewoon na lu muy wax ci suñu borom ak ci diine. ci hmm. aaya te lépp wolof la ko doon te too ko ubbi boo ko ubbi fekk ci alxuraan. jërëjëf beneen bi mooy. révélation ak inspiration. Hmm. waaw. laaj ma lan la. alxuraan révélation la Mohamed dina si ñëw yeneen yéen nag inspiration la mbiru nit ki la bokkul ak li yàlla wax li yàlla wax dañ ko war a doxee ndax bu fekkee dañ ko teg foofu kese yonente bi neen na même boo amee douze personnes mën nga julli si juma donc organisation ñëw na julli juma bi ngay wax ajuma jot waxu douze personnes rek boo doon taxawee julli nga juma waxtuma nag nga am benn cent personnes yoo xamante ni nga leen organiser ku nekk respecté les mesures ñu ñoo toog julli loolu mën na ne loolu nag mooy li nga xamante ne tey ci lañu ñu war a nekk ñaan pour ñu def ko parce que julli yàllaa ko wax te ci biir julli bi amul fenn ku xamante ni ne xanaa ñu ne la diw de toog na vingt cinq ans julliwul loolu mbiram la moom ak yàlla na seen tolluwaay la moom waajuram fa mu tolloon mënoon na toog du bële dem jumaa ndax tolluwaay la digganteem la ak suñu borom loolu kenn du ci dugg de kenn du ci dugg ndax waajuram la moom ak yàlla Sëriñ Tuba ak Cheikh Rafal ba Cheikh Rafal di julli di woor Sëriñ tubaa di ko teggil kenn waxu ci ndax diggante Sëriñ tubaa la Cheikh Rafal la ak yàlla te terewul man mii. di mhm. taalibe di Baye Fall. terewul bugaan mii di murid di Baye Fall mi ngi julli di woor. te tool ñu foofu kon ko bu ñu xoolee foofu rek comme mën nañ bañ a julli a woor en tant que Baye Fall mais xooluñu mhm. donc li yàlla wax. moom la ñuy jël mhm. waaw di ko di ko téye tënk ko. léegi nag ñu war ñu si dimbali te Ahmed Khalifa Niass ñu si war a dimbali moo première personne bi ñu war a dimbali pour que lii di julli juma. ni mu koy waxee si ceeb bi. waxee ko ci delta wax ko ren HM mi ñu jox ceeb bi ni mu defee wax ko delta bi nga xamante ni dëkkuñu fi doom bàyyi doomu bàyyi doomu dëkk bi di leen jox suñuy marché noonu moom mooy première personne bi war a mën a tax tey ci Sénégal ñu toog na julli jàkk yi nañ leen di julli organiser ko xool ni ñuy ñaanal yàlla mbas bi fi nekk mu jóge fi loolu nag boo ma déglu kon ñu déglu ko mhm. léegi nga affaire bi mhm. lu yomb la euh, mbas bu amee ba mënuñoo too dem ci jàkk yi wala ci jumaa yi beneen règle d'exception dafa am boo xam ne dafa organiser jumaa boo xam ne ci ñetti nit rek lay commencé ñetti nit xam nga ñu bëri dañu foog ne yonent bi ba mu demee Saalum Saalum googu ca ca Medina Munawara am na fa ñoo xam ne ba ni Saalum ñoo fa nekk fa la njëkk a jullee jumaa waaye avant loolu avant muy gàddaay jumaa ji njëkk am ci àddina ñetti nit ñoo ko julli ca Medina ci seen toolu tàndarma kenn ka jiite ñaar ña ca des ñu ne bu mbas amee bañ tëj jumaa ya léegi ku képp fépp fu ñett daje na leen kenn ka jiite am ñu ne du ñett fukk ak ñaar la am ñu ne fukk ak ñaar ñeent fukk la mais waxuñ na jum jumaa ji mais ñi nga xam ne bokk nañ benn kër comme tey kër gii tey kër gii tey tey la àjjuma mais fii mën naa julli jumaa ñi fi ne mën nañoo organiser seen juma waaye keroog bu mbas mi dañee jumaa ji daanu jumaa jëli bu tëjee bii ubbi bu bii bee ubbee bii tëj boobu nag moom ngeen amul alternat bi c'est quoi bu leen foog ne dañu ne nañ julli jàkk ji bu kenn julleeti mbooloo déedéet ñi nekk ci génn kër ñi bokk benn place liggéeykaay mën nañoo julli seen juma te amuñu jumaa waaye dañ leen di may jumaa provisoirement ba li leen tere julli ji dañ loolu mooy li nga xam ne mooy li ma bëggoon a leeral ci côté boobu. mais mais mais xalifa Khalifa dogguma ko mais xam nga man dafa am lu ma koy laaj. parce que ñun bi ñu nekkee xale mos nañ dem lew na ñaseen. ànd ak ustaas bi ñu doon jàngal defe naa ustaas ngoom la tuddoonati boobu maa ngi lii lycée fàtte naa turam waaju xeesoon mu yóbbu ñu ci defe naa maalaw mooy waa ji nga xam ne moo doon gab garde sa xabru waaju du maalaw la tuddoon te jamono yooyu ñu toog maalaw ci boppam. bu dee man leen sama waajur euh, euh, maalaw musu ko garde en tout cas daal ka ko fa doon garde mi ngi dëkk foofu noonu am na fa kër ñu dem seetu ko li may wax xam naa ko mais xam nga moom lu mu ñu wax daf nañu jumaa ji nga xam ne nii moom moo nekk ñaseen ñëw fa di fa julli moo gën julli lépp fépp foo xam ne nii du moom kon juma am na benn exceptionnalité boo xam ne nii même si on organiser la prière en groupe groupe ne pas toujours égal à groupe parce que am na baatin boo xam ne mi ngi ci biir loolu aussi li Omar Faye wax dëgg ñi nga xam ne dañoo jàng il faut ñu génne ko. mais euh, ah, lan moo koy. mais prof waaw waaw c'est-à-dire dama bëggoon dama bëggoon dolli foofu. Ah. xam nga jaxaat. oui laa bëgg wax. tey daal waaw parce que ki ñu yor la tey débat bu nekk ak ki nga yor. ay ma xam-xam la tey donc dañuy ut dara. du dëgg dama bëgg a euh, euh, euh, Seydina Mohamed Sëñ mu wax ñu jixaat lan lay jëriñ jixaat si yoonu yàlla. question la donc ñu déglu ko mu tontu dama koy wax fa xam daan ànd ak ay saaba di jixaat ci ay guerre. am ñu dee. jixaat yàlla tax di jixaat di jixaat ba dem jixaat ba jëli kaaba gi ci biir kaaba gi ba ñëm yëpp dama na si. am na sax ku am na sax ku xamante ni. Ah, ah, ah. d'accordul de. waaw d'accord après nu wax. waaw après waaw après mën na wax. Mm. après mën na wax ñu bëri dee nañ ci ba su ba ba yàlla def tey ñu libéré kaaba gi mais boobu am na ñu dee. d'accord waaw léegi tey mbas am na ñu ne guerre sanitaire la bokkul ak guerre bële certes. mais ci biir guerre bi aussi am na ñoo xamante ne tey mën nañu ko organiser ñu ñëw ñoom ne mën nañu jixaat toog ñaan ñaanal suñu borom pour que mbas mi jóge fi. ñu bàyyi ko mu tontu. mais mën nga ma may lu ndaw balaa muy. ci rek bi maa ngi ñëw puy parce que i faudrait que muy euh, am euh, interactivité aussi euh, est-ce que mën nañ méngale jixaat bi loolooy sa question. waaw jixaat bi jixaat bi lan moo lan lañ ciy wax. dañu fay nekk ñu ne yaa un médecin. qui naan moi je connais la pénicilline. qui ne xam naa bandage. qui ne médecin de mais bàyyi leen médecin bi mu wax. aja boog médecin bi waxal. bu ma nekkul médecin ci diine du ma nekk médecin ci leneen. <laughs> mais papa looloo tax suñu posé question rek ñu ñëwaat ci yow. nga toog parce que yaay leeral. yonent bi fañ doon dammee bëñam ci xare Uhud la ca Medina. du ci Màkka. Euh, déedéet waxuma loolu pour libérer la Màkka. def na fatxu Màkka mais fatxu Màkka euh, pacifiquement la ñëw. occupé dëkk bi mooy ci lay saaru inaa fatax naa wàcc mais li am importance mooy gis nga on peut pas sauter du coq à l'âne ñi nga diine lépp ordre la parce que am na heure boo xam ne euh, fii nii kenn mënta nodd benn waxtu fekkee ne tàkkusaan passé na kenn mënta jékki yékk rek nodd euh, ilimaan mënta taxaw ca gannaaw gars yi naan amin ca kanam mhm. dafa nekk loo xam ne dafa ordonné organisation ñi nga jullit yëpp dañuy am droit parce que booy julli tey am na ci julli gi loo xam ne boo ko deful amoo julli mooy ponki julli gi mais am na loo xam ne mi ngi ci biir julli gi c'est facultatif ci misaal booy jàpp ñu bëri foog nañ ne mënoo jàpp da defoo galax ndiko ak sorox ndiko bokku ci julli mi ngi tàmbalee rek ci raxas sa kanam sa loxo fomp sa bopp Euh, kii sa kii euh, euh, fomp say tànk jeex na nopp yi bokku ci galax ni ko sa raftu yi bokku ci donc delloo yi xalil yeneen yëpp mën na cee bokk nag mais dafa nekk ay embellissement jigéen ji jigéen yaa ngi jënd ay we mais est-ce que jigéen ji bu amul we tere na mu nekk jigéen mu ngi mel nag ñu ne jigéen kii kat du jigéen parce que amul ongle lu ngay koy tuddee seen ongle yi ngeen di jënd ah faux ongle. faux ongle. faux ongle maanaam faux ongle jigéen ñi dañ koy kii ba jigéen ju ko deful sax ñu ne léegi xanaa doo génnee nii mais est-ce que ci ndaw si la bokk wala bokkul ci ndaw si faux cils ci ndaw si la bokk wala bokkul ci ndaw si ainsi de suite diine ji dafa am luñ koy taaralee te bokkul ci diine ji maanaam ñàkk bokk gi mooy ce n'est pas une obligation li ñuy wax ce n'est pas une condition sine qua non oto bu war naa am juróomi pneu door a waaye oto bi mënta rouler mooy bi am ñetti pneu wala ñaar walla benn loolu dañ ko war a comprendre diine ji dafa am lu mu taxaw am loo xam ne nag boo ko amee dem boo ko amul dem il faut que ñuy jaar ci loolu waaye dégg naa ne c'est-à-dire que dañoo recommander julli ñii di daje ca jumaa ja ca bésu ajjuma ja utal nañ ko sax ay condition ci jumaa yi nu ñu war a sorewantee bu dee kee ci dëkku àll la mais bu dee ci dëkku taax mën nañu sës sax diggante jumaa ak morom ma xam nga defoon nañ ko pour pharmacie yi les pharmacies à Dakar dañuy sa dangay dañuy laalante presque loolu itam voilà loolu itam mën naa am ci wàllu jumaa ci taax ndax yëpp ay fees dañoo bañoon jumaa yi dugg en concurrence moo tax ñu ne fukki ñeeg ñaar ñi sas jumaa ji ñi ci bokk kenn waru cee xëy tukki ndax kon onze personnes ñoo fii des pour que jumaa ji bañ nekk selew-lew mhm. ñàkk bi ma nee nag yàlla tëj na ju moo tëj jumaa ji dañ ma mayul ma yeggale ma ci waaye ba mu tëjee jumaa yi ubbil na leen yeneen jumaa yoo xam ne mën nañ koo def ci mboolem coin mooy bi ma wax ne ñetti ni ñu daje wala juróom wala fukk walla ñaar fukk kenn ci ñoom mën naa jiite ñu julli jumaa su fe ña daje ci maanaam ci benn kër ci misaal wax jox naa exemple lu seen TV gii rek su fekkee ne daje ngeen léegi man ngeen a seet ku leen neex mu jiite leen ngeen julli jumaa waaye jumaa seen TV boobu keroog bu corona bi jeexee jumaa jooju dafay jeex. valable te. est-ce que yéen xamoon ngeen loolu xamu leen ko woon moo tax bu ma ñëwee ba dem lii ñu leen ko fi mën a wax bëriwul. ngeen jël loolu. Euh, professeur man professeur laa koy woowee sax ndax xam-xam bi Pa ma ñëw parce que parenthèse la rek après ñu continuer waa débat bi parce que loolu dafa soxal tamit ah, euh, jigéen ñi ñun ñëpp papa da nga wax tout à l'heure waxu faux ak greffage mën nañ ci jàpp ne que euh, dara dara graawu ci lan ci. ni ñu koy tegee ak faux ongles yeeg yooyu. la rek amaana. ah loolu dañu ci mën a wax de. parce que lépp loo xam ne mënoon na yàlla araamal na ko place sàngam. ah te nit bëgg ko ci ci soxnaam. ah kooku day ko ko bonal yaa ngi bëgg bon yow ci sa bopp. boppi neen boppi neen ci jigéen nag boppi neen ci jigéen nag ñàkk muuru. yow da nga muuru bi dafa war. waaw xëy na yaa ko ma suusandul ko parce que loolu moom dama ko loolu moom dama ko gis ci alxuraan moo tax jànguma ko non ah. loolu gisoo ko ci alxuraan loolu gisoo ko ci biir hmm? jigéen muuru professeur loolu la bëgg laajte jigéen muuru kon du obligation ah papa su fekkee ne yow xanaa xamu ne yow lii kawar gi ñuy seen hmm. bu dee danga koo tegoo xanaa xamu ne muuraay la ah loolu sa interprétation rek. déedéet déedéet déedéet man du ma man damay wax la texte. Ah, ah. Ah, waaw na texte ñëw. c'est que kawar. mooy li génnee ci biir yaram wi. waaw lii li nga xam ne moom moo jógee ci euh, ci der bi génn boobu mooy kawar li nga teg ak lu mu mën a doon. ak lu mu mën a doon muuraay la maanaam muur na sa bopp. même bu nekkee karaw nit la mais mais man dama bëgg delluwaat ci mbas. puy tout à dafa am man dafa am leen rek loo xam ne moo ma xaw a jaaxal ci wax ji ma xaw a rek lu paradoxal parce que léegi tantôt joxe na fi exemple que boo demee Léona Niassène maanaam ñoom ñoom ñu ngi julli dañ dem ba ci gouverneur dem si préfet waxtaan ak ñoom ñu jox leen ay charte na ne buñ ko respecté rek. mën nañ leen bàyyi ñoom ñu continuer seen i julli ñu wax léegi ne tant aussi boo demee Touba am na jumaa yu julli Saint-Louis pareil léegi le problème mooy kon dakaar lañ jàpp ne kon autorisation bi dakaar la manqué pourquoi ñu segg yenn dëkk nangul leen ne ñoom am nañ sañ-sañ dem ba ci Medina Gounass aussi dolli ko ci ah Medina Gounass dolli ko ci ñu ngi julli waaw waaw exemple laa joxe rek ñu ngi julli Yoff ñu ngi julli donc pourquoi yenn jàkka yi yenn jumaa yi moo am benn spécificité bu ci am bañ ne ñoom waruñu am benn obligation wala waruñoo jul naxal ndax mbas bi la ndax mbooloo la ñuy bañ te pourtant ñu ñu lim fii ñëpp léegi fi mu nekk nii koo ci dégg ñu